lii xew ci suuf yàlla bu mu génn ci kaw waaw lii yàlla dool dool sutura ñaan bu solo ñu noonu namoon nañ sutura sutura waxi kaw dafa am ah mais ah. ma kon corrompre ma ko ah, ah corrompre ma ana kee ya non mi ngi fi après ma jox la. tey ma corrompre nag ndax man xam nga sama laam yu moom. moo ko ah, léeg-léeg ma jékki-jékki rek mën nga mën nga ma yàqal rek ma jékki-jékki rek défense seen défense jënd lañ fi wax léegi. yàq xew booy wax sax du ma dugg. ah oui ma man dama laa bëgg. moom su neutralisme nag yow. Aïssatou Aïssatou doo nga def sànq. Eh. tegal wayu wayu may ga boobu rek sutura sutura. <laughs> mais kii il faut kii il faut mën a trahir ko. nañ ko suturaal. kii tamit day dama fas yéene wax moom. <laughs> Ah, man de je ne cède pas au chantage. waaw man moom moom du ma cède. Ah, man daal lu leer laa fi nii tey daal nañ nañ def fair la woon fawat rek. teel a tànn sa camp. ba man ci yow laa far yow du la yow mos a far. am na fi <laughs> Malick ana étiquette déontologie. loolu yëpp dañoo yàgg. loolu noo dëgg la sama gaañ la léegi kon nañ demee fair play ñu ñu ñu ñu door maa ngi nuyu ñëpp ñu lay fay sant ñëpp mm. euh, di di di ma a nga baax nga donc ah. euh, dama dama am un peu d'entrain sax te dama xabal maa ni léegi mu bàyyi fii <laughs> ah non <laughs> ci ne ay Malick du xale waaw man it man it ma nga ma euh, kontaan naa ci gis la lool macha allah nga def xaw ma ban façon tissu la maama dem sama gis naa sa bos de. yow am na ko lay toon ci ginnaaw mais mu wax ñi moom ma ko wax. alaaji Malick les réalisateurs. alaaji ah, Malick si Malick kooku moom lu mu def baax na ndax mooy sama sang di nuyu ñëpp. aywa euh, maam Fatou. aywa ñu ngi lay fay alaaji Malick laa de. waaw ah, ah, alaaji Malick waaye li nga def si suuf de. acca ñu door jàngat bi Chérif ak euh, la grande actualité. oui euh, bien sûr politique euh, d'abord ak situation bi ni mu toll ay surtout bi ngeen ne ci élection locale yi yàgg na maire yi installé xam naa di leen wax li xew ci géej waaye bat médias également woolu nañ ko mais président Macky saal aussi. Mm-hmm. ba léegi nit ñaa ngi koy déglu jëm ci ab gouvernement bu ni xaar ngir ñu daal di koy mais lan nga jàpp ni moo waral yéexaay yi. waaw yéexaay gi moom Euh, euh, Macky Sall ci boppam euh, laay jàpp ne mooy ku kii la daal c'est personnalité à la yor ndaxte ay yëfam la yor jël temps am mhm. di manœuvrer mhm. fi mu nii si ay manœuvre la nekk nekku ci leneen loolu ci ay manœuvre mi ngi yónni nag ay comme d'habitude di am lu ñu dafa lay yónni ay ay nit ñu dem taxaw si média yi di wax naan ay après législative ak nangam sàngam mais dama jàpp ne moom ci boppam moo bëgg a wane rek ne c'est le maître du jeu euh, ba pare mooy façon nit boo xam ne bu toogee di déglu. ay sa dansé micro bi. micro bi kat lañ sànni. Ah. micro bi nag lañ sànni ba tey. aja <laughs> yi tam export ñu ko ni nii <laughs> ah, xam nga ñoom seen plateau yi tam vraiment tam mm. fii ko wax fii wax fële man war naa def jàngat spécial futur ma xam naa ne boobu laa mujjee def nag daay démissionné waar bala ñu maa dàq xam nga dama am jom mais xam naa ni lii naa def spécial spécial jàngat ci biir futur média euh, damaa la ko ndànk nag tey lii na baax na mais sa baax na voilà c'est bon mais li xam dafa ñaaw quand même bi moo a déplacé wu yaa ngi woon ci élan bu neex. <laughs> bi ay. sotu ak jàngat bi. donc euh, premier ministre bi ñu ngi koy xaar boobu ba léegi assemblée nationale woote na jox nañu lengay Macky mais Macky ba léegi mënaguñoo fexe ba mu tabb premier ministre mi ngi manœuvrer wax ci loolu. maa ngi jot a euh, mais mais si yow lay donc. ma ni euh, euh, Macky mi ngi ci ay manœuvre am la nekk manœuvre am yi mu nekk nag mooy loo xam ne euh, day bëgg a wan nit ñi ne c'est le maître c'est du jeu il compte le reste moo yor planning am kenn du ko napp ne ko defal nii defal laa joxloo ma nangam nangam nangam moom moo ñu poñe kenn euh, d'accord nañ si mënuñu si dara mm-hmm. malheureusement c'est c'est c'est ça léegi ba ca des nag mooy dama jàpp ne manœuvre bi tamit am na fu mu fu mu euh, kale mm-hmm. tuuti waaw dama jàpp ne euh, xam nga ci euphorie bi ñu nekkee nga xam ne ni euphorie bi jeex na léegi on est tous d'accord que xew mi jeex na depuis semaine dernière mm-hmm. Euh, mais moom euh, ba mu ñuy jaay xew ci kaw moom ma ngay continuer di manœuvre ci suuf ndax Macky Sall bu xale yi di fox ma ngay trabaxaar bu buy reetaan ma ngay trabaxaar servo bi toogul mi ngi lijjanti mi ngi def ci suuf def ci kaw moo tax gisoo te nee naa léegi ni mu amee taille fine nii brusquement euh, te mi ngi lekk mi ngi mais parce que cerveau tamit c'est un organe cerveau bi il est suuf suuf Macky Sall serveur bi du arrêté foo ko fekk mi ngi lijjanti travail yi nangam donc yooyu xeet googu te ne travail yu loo xam ne ñun ñun daf ñu amal njariñ directement moom la amal njariñ directement moom mm-hmm. léegi fi mu commencé pour man mooy bëgg na dugal ci gouvernement moom bi ay nit yoo xam ne ñoom dañu ngi hésité du xool ndax euh, xew mi xam nga Sénégal léegi vaar dafa bëri mm-hmm. xale yi duñ la may jàmm nga dugg fi ñu vaar la yàq sa àddina mm-hmm. ñëpp dañ naan est-ce que jar dugg dugg ci Macky Sall dina ko jar woo du ko jar mm-hmm. tey ñëpp ñi ñu sa ëpp PDS la gis nga war mbij boobu PDS mu jéggéen tey suba xaw ma démb seen communiqué boobu ñu génneel alors que tout le monde sait et ça c'est une conviction Euh, lu lu kooku ne woon philosophe mag ba moom ne euh, le bon sens est la chose la mieux partagée du monde mais cette conviction aussi est la la plus <laughs> partagée du monde est la mieux partagée du monde. Mhm. mooy que y a un rapprochement. clair et net. c'est l'évidente évidence entre Macky APR euh, ak PDS. te loolu mais PDS démentir nañu de. xam de démenti bi lan la démenti tu mets des guillemets en mm-hmm. fait c'est c'est stratégique parce ñoom tamit mag da leen yàgg ndax signal gauche di ab droite da leen nax di leen kii di foo di kii tëgg wa ñaan di def affaire mm-hmm. loolu tax ñoom itam dañuy bëgg xaar ba téye am nañu ils ont raison mm-hmm. ndax avec avec Macky Sall tout est possible tout est possible avec Macky léegi na ñoom comme xam nañu loolu ñoom itamit du ñu teel a jaay la peau de mouche gis nga pour man euh, Doudou Wade li mu def ko pas Doudou Wade du waxantu Euh, sorteem boobu c'est extrêmement millimétré extrêmement calculé ba mu demee xam naa euh, am na lépp seen stratégie la parce que nag am na stratégie waaye ñee waa Wàddeen ci moom lañ ci ci ci moom la may ñee ñee tamit comme xam nañu ay yëfam te l'heure est kii ñaari at moo ko fi dese te si ñaari at yooyu bu ñu jëntewul kaayu Karim Wade euh, kële ñoom ñaari kilifa lañ mën na ñoom bañ a réeroo di waxtaan mais ça ne veut pas dire rapprochement entre les deux formations quand parce que PDS ci loolu la campé xam nga xam nga xam nga si mënoo ne damaa bëgg euh, ginaar bañ tuuti xam nga c'est pas possible. Hmm. xam nga ñoom ñaar seen ça n'a rien non non non non non Chérif xam nga xam nga ñoom ñaar seen ay c'est pas possible xam nga xam nga xam nga ñoom ñaar seen rapprochement intitut personnel naa naa aucun intérêt bu fekkee ne seen appareil toppul ça ça na fii les gens n'ont pas le temps de s'amuser ah donc li leer ba nee ba leer ba leer mooy mm-hmm. euh, euh, depuis présidentielle wax naa ko fii keroog depuis présidentielle PDS ak euh, APR réeroo ñu loolu c'est la vérité depuis boobu aussi. non da nga naan Wade ak Macky Sall. non man contrairement à toi euh, séparé ma Wade kee ñëpp c'est la même chose même famille la c'est la même chose donc euh, depuis booba ñu ngay euh, tëgg li ñaan di kii di di di di flirter je t'aime moi non plus nanga kële PDS aussi. xoola taxawaay ba mu am ci opposition bi ma nga ci opposition bi officiellement mais officieusement lu opposition bi teg mu mu mu padd te ku padd opposition bi yaa ngi jàppale Macky sans le dire donc bi lii nii aussi li xew nii tamit euh, ñaari cas yi nga xam ni ki semble se dégager ci euh, euh, parti bi ci PDS man damay jàpp ne c'est le camp de Wade et le camp de son fils léegi nag Wade Euh, moo yónni Doudou Wade si man dama jàpp moo yónni Doudou Wade wax la annoncé rapprochement nangam mais Karim Wade ci suuf moo bëgg a jouer prudence daal di nañu nañu ah, mel ni kuy xajamal cere ji pour Macky Sall teg lu leer ci taaxu bi. l'eau et le feu. voilà. seen le bâton la carotte maintenant. Euh, Chérif est-ce que est-ce que du répondre question mais xam nga xam nga premier ministre boo ko namee li Macky Sall def nii flou bii mu entretenir. Mm-hmm. bu xëyee suba namee premier ministre est ko muy muy fulaale noo ci. il faut son gouvernement automatiquement léegi nag looloo tax te comme Macky bëgg na def lu rëy dugal ci ci gouvernement parce que tamit comme ni ma wax tout le temps Macky Sall. Mm-hmm. Euh, là il est obligé même bu dee ci biir xol bi man li euh, dégg naa sama mag chéri mu naan Macky Sall du présenté en 2022 man avec Macky Sall tout est possible 2024 avec Macky Sall tout est possible lui-même il ne se refuse rien il ne s'interdit rien du tout loolu moo tax il dès à présent il a mis plusieurs fers sur le feu. mi ngi préparé sa sortie mi ngi préparé buy forcé mi ngi préparé ceci mi ngi préparé sa éventualité yëpp mi ngi préparé donc donc dans cette optique là. Innowaat mhm. euh, famille libérale moo ko gën a woo mu sarax boppam ñoom Sonko ah. dugg ci aventure du ko def. du sarax boppam Sonko xalaatu ko Macky Sall buy bàyyi taawun bi du ko bàyyi ay espèce Sonko ak façon yooyu du ko def bàyyi tay la dëkk bi ak ku mel ne Khalifa Sall wala euh, euh, kële ñoo waa Ablaye Wade Ablaye Wade miin na leen Ablaye waa waa libéraux yi nag ñoo nekk ci xolom ndax libéral la moom ci boppam mm-hmm. euh, mën nañu am nag ay entente yoo xamante ne nii dinañ ump ñëpp benn te entente benn point dong la mooy mm-hmm. su ma génnee baleen naa ak samay mbokk point bëgguma dugg léegi nag ci yooyu nag du fi teg n'importe kii te tout commence si gouvernement bii du ay gouvernement caaxaan donc looloo tax euh, mu yéex parce que fawee gouvernement bi te comme ni ma waxee sànq gis naa benn journal bu ko bind vite fait ñi nga ñi gañee ah, Macky Sall na mosul gëm APR ah waxuma laa ni dafa faale benn boo ko yaakaar faale wu leen gëmul APR APR ko indi au pouvoir mais mais mais mais euh, xam nga xam nga li mu nekk bébéem mu maa bi loolu tax lu ko neex mu def ca waaye moom ñi ma gën a gëm moo ñu nekk ci mbedd bi gisoo APR chaque jour nga dégg ñu ne mooy parti boo xam ne parti bi ci ci laa ñëwee ci euh, Aliou Sall li la wan ne actuellement fin de bi ma la waxoon mais ci la ñu nekk nii looloo tax Macky Sall ci boppam caaxaanewul à partir de maintenant fawewul mukk li ku mu ku mu dugal ci gouvernement moom bi maire yi gis nga mi ngi mi ngi rajaxe maire yi ma ngi tëmbal tëmbal di di récupérer fii kii pour s'assurer une euh, en tout cas conforme lay lijjanti maintenant li xew APR mooy li tax ma ne la bébéem la waaye gëmu ko mooy euh, ñi amoon baat ci APR yi pousse na leen ba max leen fële teg fa ay wii wii wii yi mu teg ne dem na ba gis na wii wii yi ils ont leur limite il préfère maintenant si mu tollu nii. jël jël ay nit ñoo xamante ni nii mën nañ ko jàppale au moins mu terminer calmement ou bien euh, mu en tout cas mu defal Sénégalais yi. te il ne compte pas sur ces façons là ñu ñu ñu fi teg. moo tax ñu euh, gars yi gagné maire yi dafa ne espère dañ dugg ci ko am na journal bu ko bind je suis totalement d' accord avec lui Macky Sall yoonam ne parce que local yi. à part kaaw Guédiawaye bi nga ne bett na ko ak mhm. peut-être kaaw Idrissa Seck bi tout le reste il à peu près prévu mhm. ñaar yooyu ñoo ko bett est que Yoff bi tamit bett ko woon non Yoff bi je ne pense pas waaw Yoff Yoff peut ko bett Yoff bett na ko mais xam nga Yoff maire Dakar bett ko mais bi Yoff bett na ko mais Yoff bett na ko mais naqaru ko carrément mhm. euh, vraiment amu ci un gros pincement au cœur contrairement bële Aliou bi moom poignard directement dans son cœur boo añaa directement dans son cœur bu bu Idrissa Seck bi dafa rejoué waat dafa taxaat mu defaraat stratégie mhm. mais tout le reste il avait prévu donc ñi ñi gagné ni espérer ne gagné naa naa nekk ministre gagné naa naa danaa toog il n'en a rien naa cirer maintenant je euh, a m'amène à venir au cas de mhm. euh, Aliou Sall Aliou dama gis temps yi gars yi bi def loo xam ne pour mën amal gam la quand on euh, fait une comparaison entre Aliou Sall et la génération du concret de de Karim Wade. Mm-hmm. pour moi c'est un raccourci facile. Mm-hmm. dafa laaj profond dafa laaj euh, ñu ñu xoolaat tegaat ñaari CV yi mm-hmm. fàttali ko waat li xewoon démb ak tey. ci naka la nekkee raccourci. Euh, raccourci bi xam nga lan la. bu weesoo nga ne Aliou Sall rakku kee la kee doomu kee doomu kële la euh, kon kii kee am na génération du concret kii créé na renfort bokkul. similitude yi foofu la xaw xaw a yemaale le vrai Karim Wade du du du de xam nga kan la. Aliou Sall ma ma ma taxaw si kaw Karim Wade pour wax différence entre. Mhm. génération du concret et et renfort. Euh, génération du concret Karim Wade doom la woon doom ji am doole ba xam ba tey ba fi may wax ak nii. Mhm. mooy diriger PDS. Mhm. ku ku neex sa ku neex ku neex Ablaye Wade te neexoo Karim doo fa dégg nam doo fa dégg daal ba mu nekkee ci gouvernement bi créer sa génération du concret boobu c'était euh, rupture la bëggoon indi ci bi PDS parce que il se retrouvait pas. ci euh, compagnon papa mi ay paa naa nangam mu ngi indi ay jeunes nangam paa yi nekk fa paa yi nga xam ne Kani waa dugalu leen woon génération bi concret tu vois des ministres yoo xam ne nous on était ñoo xam ne dañ doon rey seen bopp laa la wax di pëgg mii di yéeg di écarté pour dugg génération bi concret par force pour neex waat pour neex Karim Wade ndax ku neex Karim Wade neex neex waat loolu différence maintenant Aliou Sall c'est le mal aimé de bëgguñu ko parce que lu tax ko mooy xam nañu amul benn doole ci mag Aliou Sall amul doole ci mag ji moo maywul vent ci APR ànd ak moom presque mu égal ànd ak Aliou Sall ci biir APR presque égal yow doo fa dégg ministre doo fa dégg DG ku ànd ak Aliou Sall yàqu ma alors que Mansour Faye ku bëgg a dégg ndam presque vice président du Sénégal c' est Mansour Faye. Ah, non ma ma ma ñëw. ma ñëw Chérif mm-hmm. que différence entre Aliou Sall ak Mansour Faye. ñoom ñaar kii rakk la kii beau frère la kii nekk maire saint bi damay wax d'abord damay commencer ci lu apparent doo ko ñëw ci ginnaaw euh, Mansour Faye maire Sénégal de Saint-Louis mu gagné au même titre que Aliou Sall nekk maire Mansour ñu jóg taxal bu dugg ci gouvernement bi ministère bi Mansour Faye ministère bu mu yor presque mooy ministère transversal du gouvernement du gouvernement am na tentacule fu ne fu ne lay amee tentacule transport kese la di. <laughs> infrastructure ma ne la moo ëmb lu fort ci yëf yi xoolal demal xool ah, ah, bu ñu def seen seen yooyu yu yu fort yooyu xaw ma lan du finance de assemblée la mu yor ñaata milliards lay lay lambool lépp solo ci gouvernement moom lañ koy jox. Mm-hmm. Aliou Sall ñu teg ko ne écarté ko fële. forcing Aliou Sall eh, li may wax nag dama ko xam bu baax. Mm-hmm. Aliou Sall Macky Sall ne lui a jamais fait de cadeau. Aliou Sall a toujours été benn benn espèce de benn benn épine ci tànku Macky Sall. ma euh, euh, euh, maire nag maire Guédiawaye bi Aliou Sall kaa faaj presque dóor na ci table ba Macky Sall forcé na ñàkk. mais soo amutoon xaaral xaaral non Chérif xaaral Chérif i candidats yi. ma àggali donc mu forcé ba mu forcé maire maire Guédiawaye bi. Mhm. Macky Sall ñàkk pas d'autre choix ku dugg toog ba mu paree def na kee def na Mansour Faye ministre Aliou Sall a dû se contenter de la CDC. Mm. affaire pétrole gaz bi. waaw xaaral xeeb bu ma ko def. waaw yemul ak. toog parce que dafa taxawoon. non attends attends Chérif. foofu la foofu la coow lu juddoo Aliou suñu kat. ci laay ñëw boobu laay ñëw xaaral ma ñëw dama ne. xam nga CDC li ko may CDC euh, direction bu am solo la bu rëy bu fort bu fondamental. waaye waaye. <laughs> dafa bu fekkonte ne CDC tolloon naat ministère Mansour Faye kon Mansour Faye ñu fay yóbbu. maa ngi ñëw ci kaabu. mais Mansour Faye attends Mansour dama lay laaj nag. noppal chef chef da nga may laaj waaye ne bu ma yàqal dafa dafa am fu ma bëgg a terminé doo ma yàqal waaw bàyyi sa non mais non waaw ñëwal il faut nga taxaw ñu laaj tuuti parce que da nga indi génération du concret mais Mansour Faye membre fondateur APR la ñi ko fa ëpp légitimité ca parti ba bokkul mm-hmm. donc lii mu am aussi daf ko jafe comme ñëpp il mérite de léegi ma ñëw parce que dafa am plus c'est l'un des rares responsables yoo xam ne tamit gagné nga au moins deux fois sa fi nga nekk waaw non non non loolu mais attends wax rek c'est pas justement rek famille présidentielle na légitimité bi. moom la xanaa moom Chérif ñëwaguma foofu dama moo tax ma da nga ma waroon déglu. ba xam fu ma jëm xam dama commencé wax lu apparent ñëwaguma ci profondeur dama ñëw si ne ma wax ne ci li ngay wax noonu dama wax ne fii sa bépp sénégalais. boobu Aliou Sall nga Chine xaaral xaaral xaaral Chérif bépp sénégalais. Mm-hmm. bi nekk bu bu yeewu dëkk Sénégal yeewu fi wala nga dëkk yeewoo nga yeewu beneen réew. Mm-hmm. da am nationalité sénégalaise tu as droit que quiconque loolu mooy dëgg c'est c'est la vérité absolue mm-hmm. légitimité bi Mansour Faye am légitimité bu un membre jaaw am moom la Aliou Sall am mm-hmm. léegi nag dafa am légitimité ak lu moral et ñun foofu la ñuy wax parce que on a été éprouvé may ma chérif fii il faut chérif fii il faut nga may ma tuuti ma sinon damay daf après dafay jaxase li ma bëgg a wax je veux dire nous on a été éprouvé par Karim Wade moo tax képp koo xam nii bépp président bu fi ñëw li gën mooy nga éloigner sa famille ci gestion des affaires maintenant ndax bu nee légitimité rek ma Marème Faye kama ko sa ëpp légitimité ak ñeneen ñeneen ñoo xam ne xaw ma leen. attends attends ma ñëw Chérif léegi mais ça c'est pas le c'est pas le débat de fond le débat de fond mooy lan mooy ci renfort la ak génération du concret mm-hmm. la différence maintenant euh, euh, euh, Mansour Faye mm-hmm. nonobstant li mu doon liggéey rek et cetera ndax ni ma xamee Mansour Faye noonu laa xamee Aliou Sarr bien que Aliou Sarr da gën a xam. ndax euh, mooy sam sunu mag la. depuis ceci sunu doyen la. ci bi donc euh, Mansour Faye tamit je le connais très bien te naa wax ne sama xarit la donc xam naa ko ñoom moo tamit ñoom ñaar lu ma ci wax lu ma leer laay wax. Mhm. te ñoom seen bopp duñ ma démentir parce que lii wax naa ko ak kenn ku ne su ñoom donc toog naa kenn ku ne su ñoom ñaar donc je dis Mansour Faye Euh, li tax ma la Aliou Sall c'est le mal aimé de l'APR même Mansour Faye bëgguñu ko de mais dañu ko ragal alors Aliou Sall ragaluñu ko parce que waa APR bëgguñu kenn bëgguñu sax Macky Sall. Euh, lan lañ koy ragalee. ni ñu ragalee voilà merci Fatou c'est la bonne question loolu xam pourquoi ñu ragal Aliou euh, Mansour Faye. Mm. faale wuñu Aliou Sall parce que Mansour Faye dafa am doole ci kii bi gouvernement xam nga ko kan kan mooy doole. Mm. rakk ji Marième Faye Sall dañu kaa nopp bëgg ko. dañoo nag Macky Sall Marème Faye Sall bëgg ko. Marème Faye loolu la voilà léegi. léegi xaaral léegi différence bi mooy. loolu xaaral xaaral politique xaaral xaaral xaaral xaaral noonu may ma ma ñëw. c'est il ngeen déglu ma xam nga la xam li garaaw na. mais mais mais mais il faut ngeen déglu daal Malick da ngeen may il faut déglu mais day gën a gudd day non non déet déet dama dem nga ma war a bàyyi ma ko ma ne parce que damay chronique c'est il faut pas l'oublier c'est pas comme spectateur. non non vous n'êtes pas là comme spectateur comme spectateur mais il faut pas may m'interrompre parce que am naa fulla bu doon ku ma ci interrompre taxaw wax la sa bopp. donc. <laughs> leneen li mooy. waxuma dugguma ci sentiment dama ne. Euh, c'est un secret de polichinelle que tout n'est pas clean fine nice lisse entre Aliou Sall ak madame Faye Sall c'est la vérité aussi. benn. Mm. ma Mansour Faye. ils s'entendent a ils ne s'entendent pas ils ne du tout. ça c' est la vérité euh, aussi léegi beneen bi xaaral mais mais on est malheureusement bu fekkoon ne on était dans une république normale warul am rapport warul am benn sentiment warul fi dugg compétence lañu war a jiite compétence lañu war a jiite mais xam nga ne fii on est Sénégal fii da gis ay ministres yoo xam ne fii Ba mii ak euh, pour la petite ak euh, le ministre Mbagnick Ndiaye que je salue au passage sama xarit la mais fii lañ mataaba dafa naa moo xam ma Maguette moo waxoon daa ñun nañ sant Mbagnick Faye Sall moo moo ñu fi dugal donc loolu waxin mais loolu c'est important parce que temps baa ngi dem te dafa am fi ma bëgg a daanelee dama bëgg wax ne euh, Mansour génération concret ak Karim Wade ak renfort bokkuñu mhm. parce que yamuñu doole mhm. Aliou Sall li mu def nii ñi mu àndal àndu fa ak benn appareil boo xam ne ni am na doole ci biir ci biir euh, ci tey tey bu Mansour Faye xëyoon suba bëgg a créer mouvement ci ngay bàyyi àddina li mm. nga gis ay ministres yu ne fang dem taxaw ànd ak Mansour Faye xalaatuñu ko ci Aliou Sall alors Aliou Sall ce qu'il vient jàngat la jàngat bi mooy lan mm-hmm. mooy la wan ne la fin de règne bi ma la yàgg wax moo fi ne sabar gu tas bi ma la wax ci APR moo fi ne Aliou Sall au moins am na courage yu taxaw créer euh, mouvement moom pour prendre son destin en main il ne te c'est un homme politique Aliou Sall dafa nuroog nunuus am na melokaan nunuus waaye du nunuus Aliou Sall moo njëkk politique Macky Sall c'est un homme politique bu am ay stratégie am ay tactique bëgg dara te ko te loolu c'est c'est légitime. ni man li mu wax dana ñàkk géejawaay. xaaral non mais non ñàkk bu doon noonu kaay ma wax la. Ah, fii xarañ xarañ ak xarañ bu doon loolu la Idrissa Seck ne ne ñàkk ah, dëgg la. non non non waxee ma foofu Chérif Dia waxee ma foofu déglu ma ma wax dama ne. li Aliou Sall def. moi personnellement je suis d' accord avec lui tu sais d' mm-hmm. parce que dañu nekk fii laa wax ne Macky Sall il a l' obligation mu ut voies et moyens boo xam ne dafa war a réhabiliter et Karim xalifa et Khalifa Sall Barthélémy Dias mi nga xam ne tay jii son son procès dafa ubbi tey dañ ko war a ubbi tey en appel dañu war a bàyyi justice mu dem ku nekk la nga am nga jël ñu baatare carte gi. ndax sunu réew mii kenn moomu ko. koo xam ne Macky Sall nag moo fi créé loo xam ne ku mu yaakaar na yow mën nga mën nga ko ut mu dagg sa baat. mais ce que Aliou Sall de l'acte de qui vient de poser. mais ci biir affaire am na ay ministres ak ay premiers yoo xamante ne nii. ils ont cette envie là. defuñu ko ñemewuñu ah, ah, parce que tout ce pourquoi ñemewuñu. Mm-hmm. dañoo ragal ñu dàq leen léegi qu'est-ce qu'ils dañuy jaar suñu di ay nit. maintenant lui lui ce qu'il vient bëgg na dara ci biir il a le droit maintenant beneen bi may jeexalee Fatick mooy mm-hmm. euh, affaire u ak Sonko euh, euh, ñu ngi célébrer mois de mars bi lu metti la su ñun te bala maa commencé damay nëkk ma masawuwaat famille ñi gaañu gaañu ak ñu loru ci nëgë nii mars lu metti la des gens comme moi ñi xam ne qui qui ont été ciblés ñu joxe suñu tur ci réseaux sociaux yi na dañoo bañ Sonko ñii di joxe fii la dëkk ak fii la dëkk taal leen fii taal leen c'est encore l'occasion pour moi de remercier quelqu'un comme euh, mon frère euh, le le le maire defe naa nekk sama kër pendant presque un mois du matin au soir pour assurer sama sécurité ak sama sécurité de famille te ni mu ko defee ci man noonu la ko defee ci sama mbokk yu bëri kooku Euh, ñun mënuñoo fàtte. émeute mars te émeute mars lan moo ko waral mooy benn nit benn homme politique. Mm-hmm. moo jóg. xam li muy def. Hmm. kenn forcé wu ko kenn drogué wu ko moo jóg taal otoom dem à maintes reprises ci benn salon soi-disant pour se faire masser le dos xaw la xaw ma lan dama feebar dama nangam bàyyi fii euh, clinique bàyyi fii médecin yi bàyyi fii les kinés waax ba ci femme boobu xam nga foofu nga xam ne foofu y a tout sauf un truc qui est nga dem fa en toute connaissance de cause ba mu demee ñu jiiñ ko viol qu'est-ce qu'il fait. au lieu kon ba mu toogee àdduna euh, euh, àddina ak askan wi qu'il assume au moins sa part de responsabilité xam nga tey ji Sonko bu doon ba mu toogee première jàkkaarloom ak ak àdduna ci yëf yi bu doon ba mu toogee dafa nangu baalu ak jabaram yi baalu ak Sénégal militants yi ko gëm nangu ne def na erreur en tant comme en faute politique def na ko yam fa ne peut être xaw yi ak benn élément de langage. mais mais comme yoon defagul liggéeyam est ce que mën na reconnaître. non non noonu yéen coow ba ñëwaguma ci fin bi dama ne dès le bu loolu amoon. kon wax ji dafay parce que c'est d'abord une affaire privée. mais moom leen dafa demoon faj. non mais ku ne xam ne foofu faat faj am fa te loolu xam nga lu ko mën leeral justice mais ce que li ma déploré mooy moom Sonko. moo jël sa propre bêtise sa erreur boo xam ne c'est un c'est une erreur personnelle qu'il a faite lui-même moo def bêtise boobu en âme et conscience kenn drogué ko kenn dafa encore une fois kenn yeewu ko yóbbu ko wala ñu filmé ko wala def daal moom ci boppam moo toog am ñaari jabaram xaw ma ñetti jabar am ay doom am ay militants ay sénégalais yoo xam ne dañu koo gëm mu bàyyi foofu yëpp jël loolu yëpp këj ko. taal otoom dem à maintes reprises ci Adji Sarr mi naa day maasawu naxu kenn boppam la ndax. ba mu ñëwee toog xëy Fatou mu ñëw. Aïssatou salon de massage yi gars yi ñu fay mu ñëw xaar ma ñëw léegi. Hmm. ba mu ñëwee ba mu ñëwee def noonu. du délire ah, dem ci salon xaaral xaaral xaaral Chérif mu ñëw donc mu dem ci salon ba nee na dafay maasawu hmm. ba mu demee foofu di maasawu la fa xew xew fa xale bi génn ne Sonko daf ma violé Sonko. tout ce qui représente bëgg ci réew mi nee na du moom nangam nag mais xam nga lu garaaw lu koo def moo moo ñu waral moo ñu moo moo moo tax mars am mooy bêtise la jël sa propre bêtise qu'il a fait lui-même moo la jël dugal ci politique daan nañ ñii dañ maa dëkk dëkk gars yi gëm ko kaay wuyu nga bañ a wuyu ba léegi wuyu wuyu. loolu tax mu am 14 jours dafa dafa jàpp ne yàlla politique waaw ah, xaaral ma ñëw rek xam nga Aïssatou demoon na wuy xaaral non non attends attendez attendez c'est un député attendez attendez attendez Malick euh, du n'importe quoi lañ ko war a convocation bi am na ay am na ay failles tout a ah, on est d'accord may ma ma ñëw tout ça on d'accord ba ca des mm-hmm. mooy moom na ma wuyu jee posé na problématique ba pare dafa am loo xam ne bu ñu ko tegee sa der quel que soit alpha ñu teg ko sa der da nga siif ci mim réew yow boo dara ñu ne da nga siif ci mim réew da ngaa violé wala da wala da nga sàcc tuuma gur gu ni toll yow nga bëgg nga am ay mbooloo si ginnaaw am njaboot say doom di gis YouTube di dégg aju saar nii kooku au prix de ta vie teggil sa malaan ba xam ne ñu ko wax en wolof teggil sa malaan kiiraay su leen au pied sama ay doom député la ak nangam nga wax dem doog sagal sa der bu dee yow tu es innocent. tu mais dafa jàpp ne liñ ko àttee jaarul yoon. d'accord mais mais mais léegi Fatou. délucider l'affaire xaaral xaaral Fatou ma ñëw léegi tout ça xaw na xaw na fi mu dem mit mag def naa ma parce que mais beneen affaire bi mooy Sonko xam nga dafa am Fatou ñetti tribunal ci àddina dafa am. tribunal lu tribunal des hommes que nous tous connaissons yaa boo xam boo xam ne moo nekk au-dessus de ñëpp le tribunal du vin kooku la fay xew kenn xam ko ndax kenn demagul ñëw wax ñu fa fa xew mais bu gën a garaaw laa jàpp ne bu nekk si àddina nu ñu dund bi gën a garaaw c'est le tribunal de la conscience mooy loo xam ne nii boo tëddee booy nelaw moom du nelaw booy sangu doo ko simmi te tribunal de sa conscience boobu moo tax Tout le monde a remarqué, le monde entier a remarqué que Sonko, malgré ces choses, ces ceci et cela, depuis euh, euh, mars 2021, ba nii baatal fi campagne. wuy ma xaaral la ba nii waaw loolu kooku kooku c'est pour la galerie. kooku la c'est le côté cour mais le côté jardin Sonko ko gis ne perdre na poids bu rëy rëy naka fa amul rek. ay est-ce que pour sport pour. la xam nga Sonko Adji Sarr wax na démb lu am solo. foofu laay jeexale ci euh, justice li ñu xaar justice. très bien pour xam nga xam nga li Adji Sarr wax dafa am solo ñëpp xam nañu ko mooy lii yëpp lu ko xam nga lu ko waral mooy fii réew mi ku ci tuumaal siif lu ndaw Cheikh Yérim Seck nii bu dee tur am na ko tekkiwul nag li ci ndax c'est pas un homme politique waaye bu dee tur tur kenn ëppalewu ko tur fii lañ ko ne ñii dugal ko. justice dem amul notoriété amul portefeuille amul mais pourquoi au nom de quoi Sonko ba léegi muy daago ci taaxum bi te ñu tuumaa ko ñu tuumaa justice ñun ñu am droit ñun ñu war a xam lu xew Sonko kenn mësu ko dégg muy muy muy nu mu nu mu fattee nu mu nit ñi levelee sama sama compte judiciaire doo ko dégg mu mu réclame à co à cri nous juge ko maintenant parce que tu parce que Macky Sall pour je sais pas man je ne comprends pas Macky Sall brusquement sa euh, brusquement Macky Sall moo ragal de manière épidermique Sonko dafa dafa Sonko dafa ko napp ci xel ba nga xam ne Macky Sall dafa ko ragal boo xam ne ñemewu ko Aïssata Tall Sall elle a parfaitement raison maintenant j'en appelle à la justice parce que apparemment Sonko si boppam malgré ces ces choses ces kii yeeg yooyu euh, levée ci nangam il n'a absolument aucune que justice cette petite là et, et, et ces droit à une justice kon li fi am mooy Sonko dañ kaa tuumaal. état kii Sonko Ousmane Sonko. il la mm-hmm. Ousmane Sonko mm-hmm. la petite euh, la Adji Sarr justiciable la kii dañ ko tuumaal lu y a eu des victimes qui c'est une victime ou pas justice moo ko war donc justice ñoo am bu Sonko bëggul ñemewul dégg xool dem lu Adji Sarr wax lu ju garaaw yu Adji Sarr wax te Adji Sarr système de défense am na Sonko am na système de défense di woo àddina ci ne dañ maa dañ ma tuumaat politique mais Adji Sarr benn sotti Adji Sarr rek rend na Sonko euh, presque deux semaines Sonko tout genre euh, euh, le gars il est il est complètement à terre maintenant Fadi nga nga baal ma dëkk bii dañu war a bàyyi naafeq ak hypocrite Sonko dañ ko tuumaal ci sa comporte comme un bonhomme c'est un li nee na c'est un leader patriote la patriote la na waaxu fee toog comme un bonhomme toog ñu jugé ko lu mu am mu jël fi may jeexalee nag sama yenn affaire Sonko mooy escaf la ko wax Fatick escaf laay ñaan vraiment li xew escaf dafa dafa métti dafa ma touché profondément mm. parce que euh, euh, escaf comme euh, RTS moom mooy mooy mooy média boo xam ne dafa fees fu ne ci ci ci Sénégal euh, euh, benn baas def lu ne génn àddina bàyyi fa ay héritage bu rëy ay doomam jël TNT bi nekk ci nangam mais moom ay difficulté damay ñaan vraiment Euh, Sénégal am na fi ay nit yu baax am na ñoo xam ne am na yàlla baaxal na leen nañ bu bu dee Macky Sall nangu jël lii à bras le corps mm. mais nag seen association des patrons de presse bu ñu seetaan ñu liquider mm. Excaf bu ñu seetaan ay ces employés là ñu bàyyi na dans la rue loolu laa bëggoon a faati nañ nañ nañ taxaw Excaf jërëjëf Aïssatou et puis de tout cœur avec nos euh, sunu confrères yi nekk foofu euh, ci Excaf Aïssatou merci beaucoup ñu lay jaajëfal ci sa jàngat ñu <laughs> koy defee àllarba ju jot léegi léegi Euh, ñu dalal suñu invité madame la ministre Fatou Blondin Diop.